suñuy jaar-jaar daal ba nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. seen YouTube bu Ndiamé TV nga mën a ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. maire bi docteur bi ku góor kii ak ku jigéen ki ak ñu àndal ñépp ñu ngi leen di sant bu baax lii li tax ñu defee ko nii bu ñu bari duñ mën a wax moom liggéeyam bi mu fi liggéey dañ ñëw rek pour ndokkeel leen sargal leen yaaramal leen ci liggéey boobu ndax nit it su la defalee lu baax war nga ko wax donte wax nañ ko seeni liggéey rafet na trop lépp loo xam ne waxoon ngeen ko suñuy ndaw wax dëgg yàlla def ngeen ko sant nañ leen gërëm nañ leen eh, fii nag nit ku nekk soo ooyee ay nit bañ ñëw rawatina ki nga xam ne mooy kilifa ci arrondissement bi ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw toog rafet na nag nga donte dégg nga ca dara mu tudd itam tuuti pour nit ñi xam mbir mii lan la monsieur le sous dafa am mbir moo xam ne jamono dañ koo réere ñii xam ko ñii xamuñ ko mu yaatu trop te yàlla defal ci senegaal loo xam ne Sénégal buñ ko xamoon rek avancement biñ bugg yàlla defal leen ko nu mu gën a gaawee ñu noppale xam nga tey coow li yépp lenn rek la nit ñi dañu xam ba pare yàlla wàcce leen ci àdduna yàlla leen xamal wàccee leen ci àdduna tuddee leen fàttekat yi insaan fàttekat yi ñu ñëw ci àdduna kenn ku nekk ne dama tukki si te yéen suñ leen waxee lu ngeen tukki si da ngeen wax ne dañ demoon ci jàng mbudaay dama tukki dama demoon jàng sàngam wala tukki sàng wala ngente wala ceeb léegi nag ñun dañ tukki si ci àdduna mais pour nga mën a laal ne lii moo tax ñu tukki si loolu mooy problème bi te loolu bu ñu ko laaloon rek xale yëpp baax mag ñëpp bëgganti ñépp juboo fitna jeex takk ci àdduna bi ñëpp am jàmm ñëw bi bitig yi weleng leen te kenn du sàcc kenn du jël dara yi kenn loola nag yàlla daf ko joxoon cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba mu yor ko ci dimbalé aduna bi mu dekk fan Sénégal tax ñi jang ba paré laxas ak seen jang fekk ci serigne touba xana kon mbir mi du jang te jang ba paré dem fekk serigne touba ku melni ma jaw paxa dafa jexalon téré ñi ku melni ma ñaw silla dafa jeexaloon téré dem fekk serigne touba xam nga nit fay dem ak xelam xana du jang xam julé koor ak génn même asaka ño tax xana du lol de ñoom xam nañ ko ba paré nek ci ay imam lan mo tax ñu fekk serigne touba lan la jang ba paré xam ni ngay julé ni ngay horo yépp nga nekk xaafis nga wal ku dem jiblu lan mo tax xana du julé koor xam nga ko ba pare lan motax nga dem jébbalu lan motax nit ki jang ba paré dem sokon jébbalu lu tax nit ki jang ba paré dem Medina ba ñess naari jogé ko ci réewu gannaar àll leen téere wax jang indi Medina ñi ñew Medina lu tax nyi jang ba paré da ñew Sénégal liñ outil lan la gis nga loolu su ko réew mi xamoon réew mi yëpp noppaleku ñëpp mucc te kenn dootul am bàkkaar dee dugg ak jann lay doon loolu nag la yàlla jox Cheikh Moussa mu ne du man maa ko yor man rek sëñ Tuubaa moom la yoroon imaamu lay moom la yoroon nit ñu baax nit ci Sénégal yëpp ku ne mu amoon amoon nga te loolu soo waxee ñu ne loolu xam-xamu xale yi xam ñii seen mbir la du suñ mbir du mbiru borom daal mbiru ñëpp la kenn ku nekk bi ngay ñëwaat ci àdduna xam nga yàlla ci yow ma alas rabbikum na yàllaa ñu bind ba pare sotti ruu ci kanamam ne leen ndax nekkuma seen borom ruu yi ne ko anka yow yàlla yaay suñu borom. kon xam nañ yàlla avant yàlla bindagul asamaan ak suuf ñu ñëw ci kaw suuf nag léegi. léegi nag ñu de bu xamaat loola nan yàlla nañu fàttaliku leen ma fàttaliku loo xamoon lay doon looloo tax naar yi dañ ñëw ci Sëñ Tuubaa pour fàttali ko loolu tax ñu ñëw ci Alaaji Maalik loolu tax ñu ñëw ci euh, euh, Baay Ñas looloo tax ñu ñëw ci Cheikh Moussa loolu nag laa doon na ci Cheikh saa indi ko ci mbudaay gii tasaare ko ci àdduna bi ku ko jot mucc ku ko jot raw ku ko jot texe ku ko jot doo jot mettit ak bàmmeel siiw na lool sous ñune serigne sëriñ yobu nit aljanna wax bi dafa siiw waaye saxut siiw na waaye saxut yomal xiyaam bala ñu jëm suñ demee ba mbooloo mi def ni ñu def maa ngi koy wax di ko waxaat nii ñu def nii yàlla nee na yow mi bañ sëriñ doo dem yàlla nee na kenn ku nekk ci sa turu sëriñ laa lay oo yow ma naddahu kullu unnaasi bi imaam yi kenn du ku nekk dinaa la woo ci sa turu njiit ne yow njiit gi loo àndewoon ak ñii mu ne dama leen xamaloon yàlla dama leen wonoon yàlla ah yéen lu ngeen ande àndewoon ak moom daf ñu xamal yàlla daf ñu wonoon yàlla mu ne jël leen seen ndeyjoor tey jël seen téere ànd ak moom dem aljanna kon nekk sëriñ bi ngay àndal ba dugg aljanna mu ne yow loo àndee woon ak ñii mu ne man de suma askan laa leen wonoon ah moom nga àndee woon ak ñii yàllaay wax de te su fekkoon addis werante am mais ay alquran la yéen lu ngeen àndee woon moom ah wax dëgg yàlla askanam la ñu wonoon mu ne ngeen poñeexante kenn ku nekk wax sa yaa ma waxoon maa la waxoon mu ne tey nag jël leen seen càmmoñ jël seen eh, du ngeen xam dara ci seen téere dem leen ci kër gu tàng gala ngeen dem fi lii yàlla waxut ko sëriñ ku dugg aljanna sëriñ moo la fa yóbbu ci aaya alquran bii laa wax waaye ñun dañ xamul lan mooy sëriñ sëriñ mooy ku la jopp ci loxo ba la ne ngi nii te gis nga nit ki jaamu yàlla ragal yàlla xam yàlla mooy dayo ba gis nga nit ñi xam yàlla am toll jaamu am noonu la toll ni jaamu yàllaam toll noonu la ragal yàllaam toll gis ngeen ñii millions yu nit suñ fi nekkoon benn takkadeer nekkut fii nii ñu def comme xar rek la def comme xar ndax ki ñuy gis ko ko gis ku ko gis wekk ko yàlla duñ ko ragal comme ni ñuy ragalee jaan mais dañ koy wekk parce que li nga gis jàkkaloogu moom dëgg-dëgg da koy wekk lii laa leen indil ci biir seen arrondissement ci fii département tibbee ko daaru bi indi ko ci seen biir ko xam ci te yàllaa ñu digal nag ut leen wasila yéen ñi gëm yàlla la wax loolu nag gaa yi dégguñ ko xam ngeen ñi gëm yàlla mooy ñan mooy ñuy julli de woor di génn màkk ñooñu la yàlla ne yéen uuti leen wasila lim ci teg te ngeen ragal yàlla te nit mën nga di julli di woor di génn askan doo ragal yàlla ragal yàlla mooy wéet def lu baax wettale ko def lu baax mu ne ñi àgg ci dayo boobu nañ uuti ku leen indi ba ngeen agsi ci man yàlla gën te nekk bërëb ci bërëb béréb bu nekk mu nga fa waaye dafa am béréb bu mu feeñ tey nag yàlla jox nañu ko for nañ ko ca daaru kër Mamadou Xodé ji mu tukkee ci Cheikh Moussa ku ñëw ñu jox la nga baax adduna baax àllaaxira loolu lay yor nga mucc adduna mucc àllaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen cheikh yi incha allah ci kanam tuuti suñu ngeen dellu si at na ngeen ko defee woon ngeen defee ko ngeen def 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes ku nekk jël 10 minutes sant naa leen gërëm naa leen maire jërëjëf dëkk bi leer na nañ ndox mi liñ ci waxoon def ngeen ci waxoon def ngeen ko lépp daal wax dëgg yàlla mat na sëkk ñun lii lañ bëggoon def ko te emu ci kat lim toog nii toogee def na man suma weer ci mairie bi duma ko jëriñoo wala ci beneen anam laa koy jëriñoo yàlla laa koy jox are yéen laa maire bi waaw bi mu amee keru diina bu nekk dafa dara xëy na man sax dafa waxoon beneen xalaat la bëggoon seet benn xaar def fa loo xam ne loolu dafay saxati faw ñu ne ko déet masal la ku nekk rek ñu xam ne li waxoon def na kon nag ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal parce que nit su defee lu baax da nga koy wut def na lu baax président de la république it recensé na sëriñ si lu mës ta am ci Sénégal def na ko tey bit si bu ñu wootee defal ko alquran xale yi di jongante màkka lañ ko daan gis wala feneen wala nit am xaalis def ko waaye jël ko ci bit say réew defal ko sa doomu dëkk def na lu baax nit nag su defee lu baax da ngay xam ne diw def na lu baax kooku lislaam nag ku ko defal lu baax mu tagg la kañ la sant la lii la def sant nañ ko gërëm nañ ko ngërmaa ne wax lii la def na def kartaam téye ko mu nekk yaram ak teggiinam su bés ba jotee kenn ku nekk na seet ka ko doy mu dox mu koy dugal ca karam te mu am benn minute ci foofu mu nekk delluwaat liggéeyam dem liggéey bi yàlla jox mbir mi nekk la nga war a def demal def ko walbatiku aw sa yoon delluwaat ñu xaar li yàlla da def yàlla def ko ku nekk am ndam ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp bokk ndey bokk bàyyi nag xuloo du ko yàq kon nag nañu bëggante jàppante ngir jëmi yàlla yàlla pare na te man dem naa ci réew moo xam ne dañ ah, ñu baax lañ ñemewoo sax nit toog nga ne président bi nangam kenn Barba ñaw ko kan ñaw ko moom kay li ngay def dangay ngay dal rek waaye tubaab yi ñoo baax ñun ñoo ñëw ci lislaam waaye tubaab yi ñooy doxal lislaam réew mi ki ko soxla xam nga lu muy wax lii lay doxalee réew mi nii laa koy doxalee programme bi laa koy doxale nit ñi dañ noté rek su leen doyee ñu defal la su leen doyee ñu bàyyi la. pourtant loolu la lislaam santaane ku gëm yàlla gëm yonent na nga wax lu baax wala trop. Assis déglu naa ko rek dama koy déglu rek da ko déglu rek da ko déglu rek da ko déglu rek ma ne kii nit ku baax la. nit ku baax la xam na doxalin su xamu doon doxalin toj na carte yi bu yàgg ñàkk fi mu toog waaye nit ku dal la nit ku baax la loolu mooy xam yoon Macky Sall su defu doon dal googu doo agsi fi mu agsi yéen président du caaxaan de Abdoulaye Wade xiiru na ko xiiru bu ne waaye mu tëj mu ñam rek noppi rek noppi rek bu yàlla jox ko lim koy jox kilifa duñ ko yab soo ko am problème de te tuyo kaay rek kaay rek ci biir sa kër ci biir sa kër rek ñëw fi rek saaga borom kër gi def ko rek danga am jafe-jafe man daal li nga xam ne moom laa gëm tey te moom laa gëm ëllëg jigéen sox dama la wax dangay fen man déet yàllaa wax yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ci hadis ku gëm yàlla gëm bis pénc la nga wax lu baax wala nga noppi su fekkee xam-xam ngay jëfandikoo na waxal lu baax wala nga noppi ku dul yërëm nit ñi yàlla du la yërëm nañ yërëm ñëpp dimbalante ngir yàlla dugal sa carte dem ñibbi woto yi moom aw ma lan lu ciy wax nit loo doon dugalal sa carte aw sa yoon dem ñibbi résultat ya ku ko yàlla jox ñu xam ne yàlla jox na la ko salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw. ne mu ngi yóbbante ci moom mu jox la. mu jox la loolu yow yaa ko. émission yi dafa koy bañ a wax ah. waaw li mu ma dee baax na mais duma ko wax bu amul ma fen ah déedéet duma ci dugg mukk dëgg day maye day maye wax na maa ngi ci groupe bi waaye du ma wax keneen bañ ba agsi ci man ni ma mbir maa ngi pare rek ma jël wax kilifa buy gaawantu da ngay yàq ak kilifa buy jow ay nitam yàqoo rek da maandu ci sa njaboot gi noppi heure bu mu tegee rek nag neen diw def na nanga loolay dëgg nañ na ci loolu suñ ko negee rek ñu mucc jeunesse dégg naa sëñ Fall def na nañ fali noppi fal bët yi gis naa ko kay moom waaye dégg na fin na rek laay indi bàyyi leen ci loolu xel bu baax bu baax bu baax bu baax bu baax ñu suñ mbir mi yàlla yëkkati na ko te dootul àgg suuf mukk ci kaw rek la jëm lu ci jar ñuy wax lu amut buñ ko def rek wax lu amut day xañe maqaama nañ dal te teey te xam ne yàlla pare man de liñ ma digoon yëpp dama ne part rek waxuma dama ne waaye nag boo gisee nag wax liñ la waxoon yëpp nga teg ci nga sant gërëm nit mën ngaa bëgg mais fekk yàlla dogalut soo gaawante la nga yàq kon nag sant nañ leen ñëpp yaaramal leen sant nañ leen lool gërëm nañ leen lool njaaramal nañ leen lool wax dëgg yàlla léegi ngeen gis at bu nekk Seydina moo ko daan indi fii at bu nekk Seydina Ousmane moo ko daan indi fii. Seydina Ali moo ci fay ay millions mu ñëw taalibe yi nag milliards rek laa jotagut ci ñu milliards te leer na ma ne suñ ko amee jaral na leen ñu jaayante ko ci yàlla seen ko ak seen jigéen sant naa leen gërëm naa leen rafet lépp lépp rafet sant naa leen gërëm mu sàll nag seen dégg naa nit lu mu duñu jox yàlla duñu ñu ko jox waaw waaw ah, kon de waaye mu ngi benn leetar dina ko jox sëñ baab ma ne ko loolu ma ko wax ah, ah su ma ko loolu mu tar ñu ne sëñ bi fenn du ma ko wax ah. war na ne mu ngi nii indi ko daawit lii la def bi mu ñëwee fii dafa ñibbi rek au sous-préfet au préfet te ma gis mbudaay gisuma ko ci arrondissement te gisuma fa benn autorité eh jàpp leen ci kat ne ma sëñ bi danañ la oo wax na dëgg damaa toog bu ministère ñoo ma téléphoné fii ni ma yaay diw ma ko maay diw mu ne dañu booleeg yow lam waxoon def na ko te waxoon nga ma waxoon nga ma ne bari na lu wax lu nekk dina ko def loolu la mooy nit sant nañ ko gërëm nañ ko jaaramal nañ ko su ko defee it CRD bi dégg naa lépp loo xam nañ comme ñun xam ne luy CRD luñ bugg a manqué moom ci boppam moom action bi mooy wax ne nangam ak nangam gannaaw loolu la jàng xam ko te xolam rafet mu ne nangam ak nangam yokk leen ko ci. mënuñ leen ñàkk sant sant mënuñ leen ñàkk a gërëm yaaramal leen Croix-Rouge yar ngeen jëf télé yi seen naa Aliou moo njëkk a taxaw fii télé wax dëgg yàlla maa mbay ñam moo oote Mame Mbaye Niang bu Touba moo yor lépp luy commission ndox ci Touba moom la ko sëriñ bi dénk ay at sëriñ bu ñëw daanaka moom nga ko dénk yàlla de mi dara teewut xamloo ko ak ñooñu nga xam ne ñooy borom télévision yi mu nekk ak ñoom moo leen oo moo oo Lamp Fall moo oo télé bu Youssou Ndour damaa toog ñoom ñu ooma ne ma dañ fas daaw la télé Youssou ñëw na leen Lamp Fall la desoon ren moo leen oo ñoom ñëpp ñu ooma ni ma télé yi dañuy ñëw te nit su defee lu baax danga koy wax lii lañ def télé yëpp ñëw na kontaan na xanaa Kaolack TV yàlla ma booleeg directeur ba ñëw na kii phase 24 bi muy tàmbale mbiram mbudaay mii nga njëkk a ñëw daf ko def ay ñetti fan rek mu day xew mu ñëw xam nga li ma leen wax man képp koo xam ne jëflante naa man dina am li mu bëgg RTS moom naka jekk RTS day jël rek asoxla na ko woon man waa as ah, yow de li ma yàlla woon xam nga fi nga jëm dana koowe yàlla mi dara teew def na ko mu gañe dem nekk nekk lan député loolu la ma yàlla wax ah yàlla nag léeg nga wax mu seetlu la waaye bariwul de bariwul de léeg nga wax nag mu seetlu la nag ne la yow nit rek nga ah maa yor caabi yi du yow ah loolu de léeg mu def waaye loolu la sax sa xel dal rek nga gën a wóolu rek ne ko waaw man nangul naa loolu rek nga koy wax <laughs> waaw waaye suma xol sedd na guy fi ñu nii nag la ma waxoon ci arrondissement Ndiédiène laay wax yàlla wonut ma kenn waaye mbir mi jaxasu na de Babacar reer ba mën a loolu laa koy wax ma ne ko Babacar man de yàlla wonut ma kenn waaye mbir mi jaxasu na de bi ñuy wote fii ci arrondissement bi wax naa ko ma ne ko ah Babacar man de mbir mi jaxasoo na xaw ma kan la de waaye mbir mi jaxasoo na looloo jëkk ñun nag seen lañ goo xam ne duñ nekk opposant mukk mukk ci àdduna sëñ bee ñu ko tere nag kilifa du nekk opposant waaye képp ku toog na ba ma ngay daanu ci suuf ka yàlla teg ñu jàppaat benn yoon laa mos a nekk opposant Modou Ngom a ko waral Modou Ngom moo ñëw ne Macky Sall bi damaa préparé jàppale ko ma ne ko man du ma nekk opposant mu ne ma déet soo gisee nga am doole bu ñàkk a nekk opposant kat opposant moo jàppale jàppale ma ma xam ne wax na dëgg ma jàppale ko bu ni Macky Sall gagné toog. waaye man du ma doon nekk opposant ci makki Sall laa mos a nekkee opposant bàyyi Ablaye Wade jàpp ko mos am tey duma ko def nag lay def de waaye nag ku toog lépp lu ma mun ci lu rafet dinaa ci jublu poste njeejëng bii poste bii bii dañ koo bind ñaari at mu te Adama Cissé ne ma ñun de dañ amoon ci yow yaakaar ma ne ko ah kon gën a am ngeen ci man yaakaar ci post bi bind leen lettre te booba Ngirane Dieng moo nekk directeur contrôle bu post bu poste bu mag bi moo ko njëkk a déclassé waaye mel ni nag comme opposant moo fi nekkoon mel ni dañ ciy teg tànk booba koy ci ASP la nekkoon mu dox na ñaari at mu wax ma ko ma ne ko bind leen lettre jox ma booba góor gi góor gi kii ndaw góor gi ndaw góor gi Samba Ndaw suma xarit la suma lépp la te booba directeur post dafa ñëw rek ñu ne ko soo buggee jàll demal ci góor gi Samba Ndaw ma dem de ko waxtaan ak moom mu ne ma Souleymane léegi ma bindal la leetar oo ko jox la ko mu oo ma jox ma ko ma dem bureau fekk ko fa noyu ko yëkkati lettre bi teg ci loxo mu ne ma ren ngeen am ko ren ren ren ren yàggu dara ma poste bi ci loxo bi la jaar daaru kër Momar Xoreja forage bi taxaw daaru kër Momar Xoreja ci suma loxo la daar ba tey rëdd bi ñuy rëdd rëdd bi ñuy rëdd forage rëdd bi ñuy rëdd foraas mu jaar ci loxo sous-préfet bu agsi biñ ko xoolee gisuñ ko ci booba kàdda xaritu jën fay la Diène fay aji Makka di ñëw lañ ganalee am na lam ko ganalee waaye yëkkati suma gàtt ko ganalee Diène Faye ànd ak Diène Faye ñëw fii ci man ma ne ko man de mbudaay amuñ sax forage waaye man daaru laa bëgg ñu am forage mu ne Kanta waxal sëñ bi ni daaru am na forage mu signé ko. moo tax sëñ Alaaji bi ñuy wax bu doon man de wax dëgg yàlla ci loxo Souley euh, gémmiñu Souleymane laa ko njëkk a dëgg de. bi mbir mi feeñee nag yóbbu nañ sëñ aada ndax mbir bu ñoree boroom moom ko ñu yóbbu sëñ aada ba ci jéen fay jéen ne ko loolu dem leen toog pare na mu am. man ñaari département yëpp benn bu nekk suma loxo ngi ci ba fii ma nekk nii nag de wax su ma gisee luy jëriñ arrondissement bi dinaa jàppale maire ba mu xam ne kii jàppale na ko dara du ko dindi ndax suñ doomu dëkk lay jàppale suñ nag incha allah dinaa ci waslu àq ñu tali njeejen pasi njeejen mbuɗay dana ci wasulu ak damay yàlla su ma gisee buñ bi moo wax ak borom buñ tali bi fii waaye Aziz mi nit ku baax la xam nga tax muy nit ku baax man damaa bëgg nitu dëkk bi ñuy wax waxoo ba agsi AGM ne ah wax dëgg yàlla ñun de gis ngeen fi ñu toll dafa am luñ mën am luñ mënut bi biñ ma ko nettalee ma a gis nga ko kii kii nitu dëgg la loo bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg waxal dëgg soo tëddee rek ne la waaye soo waxee lu ñëw ci sa loxo <laughs> loolu wóoru de dañ ma baax dañ ma ñàkk baax kon nag astu lim def amul benn maire boo xam ne yaa ngi ci président ah man de gisuma ko dëkk ñaari dëkk astu astu astu def na fa kii def na fa courant mais kooku nit ku baax la pol ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari kër la def na fa mooy booy dem booy dem jaafat dëkk bi feetoo nii ci gannaaw procès sampal na ko te Babacar ne ma dafa tukkee woon bu tukkee yëkkati action mu ñëw ci man wax na dëkk wax na dëgg man nag ni ma mel nii ci ñii pasibali noonu laa mel mbooleem docteur yi nga xam ne dañuy ñëw daar seen lekk maa ko gàddu sëñ bi laa koy defal ni ma mel hôpital Ndéndéng bii noonu laa mel hôpital Passy su ma agsee lépp lu jàppoon dañ ko bàyyi noonu laa mel loolu la école bi ñaari maître rek ñoo ñëw ci man dama ñun de dañ bëggoon ay ordinateur ma ne ko yéen am ngeen koo pare jëndal leen ordinateur ministère billahi wallahi taala mooy daw ci école bi CM bi ne ma dama beneen sa école bi ne ma ñun kii lañ soxla photocopie ma ne ko dinaa ko def dem defal leen dara jay Cheikh Moussa laa ko mu ne dëkk bi ci digg nawet la ñaari teen daan ci digg dëkk ah <laughs> ñu ñëw na ma yaakaaruñ ci kenn ku dul yow ma ne ko Cheikh Moussa ci yaakaar dina sotti ba ka saleen ñaari teen yooyu comme waroon na nguur nguur a ko defee nag xam na nguur dañ foog ne mooy sous-préfet ak gouverneur yi ak ak ak ak nuñ koy waxati ak euh, ministère yi déedéet gouverner lañ wax di soo amul nit est-ce que da nit ñooñu ñooy nguur gi kenn ku ne na def wareefam rek su defee wareefam rek mbir mi sotti lii ñuy defal jigéen ñi nga xam ne moom la ñuy xoolee doom yàlla daf maa war sëkkalut du suma chance pour ba ñekkoon waxoon naa ko échographie dama ko pare woon pour njéegéen am ko bi ma ci àggaat ñu far ko am yéen waa Kulaar yëpp yéen ñëpp ndokkeel naa leen sant naa leen njaaramal naa leen sant naa leen njaaramal naa leen maa ngi leen di tàggu yoonu moo nekkoon représentant aéroport senegal ci ji fukki réew ak juróom-ñett yi nga xam ne booloo nañ ci wàllu aéroport kii moo ne ci baat bi ne ci baat bi bu soq ko fi ñu toll nii ñi fi nekk ci ay professeur ak ay takk der suñu leen joxoon kàddu ñu wax ku foog ne da ngaa muus ci saa si nga xam ne man dof laa ndeket maa ngi bëgg a tarri man li ma yor bañu te ku ko ne ci yow soo duggee bàmmeel dugg aljanna sëriñ moo yóbbu nit aljanna sëriñ moo yóbbu nit aljanna yowma naddahu kullu unaasi bi imami. yi yowmal qiyaam suñ borom daf ne dama leen di oo ci seen turu njiit yi lan sëriñ bi su yàlla la xamal mu ne jël leen seen téere si seen ndeyjoor ànd ak moom dugg aljanna su jubalut mu ne jël leen seen téere ci loxo càmmooy ànd ak moom dugg war moo sëriñ waaye sëriñ bi nag na la xamal yàlla sëriñ bi na la xamal yàlla nga xam yàlla te jaamu yàlla muy jaamu yàlla loolu mooy mbir mi de nañ ko ut ko téye ko mucc lii rek mooy mbir mi salaamaaleykum wa rahmatullah ngeen du dara bëgg leer nit ñu mucc rek loolu loolu la ilaha illallah la ilaha illallah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 la ilaha illallah suñu jaar jaar ini, dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam abonné youtube la am vidéo yi ñu duggal chaque jour